Mm-hmm. salaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokk diaspora bi asalaamaaleykum mbokk MPES jëf ak njariñ euh, ñoo ngi leen di ziar ku ci nekk ci sa tuur ak sa sant di leen màggal bu baax di leen baalu wax di leen baal ci gàmmu gi nga xam ne ci la ñu jóge di ñaan yàlla lépp lu ñu fi ñaan ci gàmmu gi suñu borom wasaare ko mu doon ay xéewal ci réewu senegaal doon nay xéewal aussi ci MPES gi nu bokk doon nay xéewal ci njaareem gi nu dëkk maa ngi ziar ñëpp di ziar euh, ñi may fekk ni ci bunt bi di sëriñ Amar Mbay Serigne Alsaan Diouf ñu ngi lay béggee waaw yaayu libaas ndaw laay bajaan sama xarit maa ngi lay ziar Serigne Modou Silla ñoo ngi leen di ziar leen bëggee ñëpp leen magal di leen jox seen wàccuwaay di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp comme ni ñu ko waxee sànq ba léegi di ziar sama frère Ablaye Ablaye Mar ci France maa ngi lay ziar di la bëggee Souleymane Diagne waaw Ismaïla Gueye mon grand frère maa ngi lay bëggee di la ziare El Hadj Mame Thierno Thiam waaw ak waa MPS yëpp ñoo ngi leen di bëggee di leen ziar bu baax a baax a baax di sant bu baax di tàmbali suñu waxtaan di fàttali suñu mbokk yi. ñaari xew-xew yi nga xam ne xewoon nañ ci ay réew yi jullit benn bi xew ci réew yi jullit benn bi xew ci sunu mbokku africain yi xew-xew bu ci njëkk mooy li nga xam ne moo xew fële woon ca Birmanie mooy Rohingya yi mooy jullit ñooñu nga xamante ne bi euh, bouddhiste yi fële ca Birmanie dañ leen doon faat di leen rey moo ngi leen di bàyyi xel waaw di leen ñaanal yàlla ci barkeb gàmmu gi natt yooyu ak jafe-jafe yooyu suñu borom teggi ko di fàttaliku tamit suñu mbokk africain yi nekk ca Libye ndaxte ku ci nekk xam ne ne la nekk Libye ñaaw na metti na te ba léegi mi nga fay am te ba léegi ñu njiitu africain yi ñu jóg jëm ca dara wala ñu jëm koo saafara ñenn ñi gis na ñu ngi yóbbu ay avion di jëli seeni mbokk ku mel ni Samuel Eto'o dañ koy gërëm di gërëm ku mel ni Yaya Touré di gërëm Pascal Fahindouno ndax Samuel eto sax bi jëli na doomi Cameroun ya kenn ku ci nekk bi nga ñëwee jox na la 1 million 500 pour nga tàmbali war sa liggéey donc di gërëm aussi euh, Pascal Faye Nduno bu Guinée ak Yaya Touré bu Côte d'Ivoire ñooñu au moins xalaat nañ seen ay doomu réew ba mën a dem ba Libye ba jëli seen doomu réew ba ku ca ñëw ñu jëkkati sax 1 million de francs teg ko ci sa loxo ne la demal nga góorgóorlu ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax ndax ay exemple lañu Alpha Blondy exemple la ci Sénégal ak ci Afrique Tiken euh, Jah Fakoly ñoom Koffi Olomide ñooñu ay doomi Afrique lañ yoo xam ne gëm nañu Afrique ba la xew li bi nañ ko mu metti leen ñu dem doxi ko jëli li bi seen seen i mbokk ya nekk ca li bi ba dimbale leen loolu dañ leen koy gërëme ñoom ndaxte wax fa dëgg yàlla wane nañ esprit panafricaniste bi ñu amee wane nañu aussi bëgg seen réew ak seen continant gi wute wute nañoo nag ñi nga xam ne dañuy rey sénégalais yi ak africains yi libi di leen jaay cent cinquante mille ñoom ñu nekk di taaxuraan ca Bercy ñooñu amuñu benn njariñ te maa ngi ñaan sénégalais yi ñu leen di bàyyi xel di bàyyi xel yan africain ak yan nit ñoo jóg ngir seen réew ak seen ay continent ak yan nit ñoo nekk ay affairiste ay nit ñoo xam ne intérêt la ñuy wut pour euh, duunal seen gafaka mais xalaatuñu ne sax ay africain ay doomu Sénégal ñu ngi leen di jaay fanweeri junni ca Libi kon nag euh, hommage alpha blondi euh, tiken dia fakoli samuel eto kofi olomide yaya touré pogba ñoñu ay doomu afrique lan bëgg seen continent di jëf ngir seen continent waaw ñi nga xamné nak nag lañuy la nekk bersi ak a woy ak a fonto nit ñi ak di campagnal Macky Sall ñooñu daanaka ñom ñom amuñu solo waaw amuñu solo waaw daanaka jërul sax ñuy tuddu seen tour ndax daanaka tuddu seen tour defal leen publicité la légui man jarala jarala jarala tuma

gis na nam ñaawe ñu def ko samedi ci guddi ba set di dimanche muy jikko ju ñaaw ah, bu dee lu leer la da nga koy def ci digg bëccëg mais def ko xaaju guddi pour bët set di dimanche nit ñi kenn du bëri coow nañ ko defee tamit doon defin defin boo xamante ne bii mooy politique bëgg nañoo jàpp waa ji yóbbu ko kaso denc ko tëj ko soit trois ans trois ans de prison pour du mën a bokk ci élection yi loolu rek la te loolu jàpp naa ne Sénégal yépp xam nañ ko fi ñu nii ci président Sall

té xajna mu mënel len dara mu len di yónnee ay créy ak ay ARMP ak yi démé noonu pour ñu len di enquête ak yoy lolu nak nek na mbir mo xamné mbir mu mu nakari sénégalais yépp la ku ci nek gis na taxaway bi nga xamné ne la fa député ya taxawé ku ci nek gis na fa aussi li nga xamné ne moom fa xew keroog ci goudi gogou Moustapha Niass mak mo xamné danaka am nga juroom ñett fukki at ah di bok ci combine yooyu ñuy lever immunité wu parlementaire ou de député du maire de Dakar ville bi presque Afrique Saoudienne... jant ci Sénégal capitale du Sénégal Nous mettre sous délégation spéciale parce que le moi contre contrôler Dakar contrôler Dakar là, que ni Dakar A 4 millions d'habitants... donc capitale bi ku la région de Diourbel ndax Touba gagné Thiès gagner nga Sénégal fofu les bi il faut nit ñi tamit di xam enjeu yi nga bi di parce que Dakar bu fekkente a bi électorat la 2 millions d'électeurs, Touba région de Djourbel am 1 million d'électeurs, Thiès am 800000 électeurs donc 3 millions cent jàpp à 4 millions ci ñi nar a voté ñëpp ñi nekk ci fichier électoral bi ñu ngi ci diggante dakaar jurbel ak Thiès. ñi ci des ay Saint-Louis ay euh, Ziguinchor ay Louga yooyu ay 300000 votants la ñu am ak i 400000 votants lépp nag boo boolee lépp ay 300000 ak yooyu la am moo tax ñooñu soxaluñu leen. léegi nag Dakar gi ñu bëgg a moom te depuis mun Macky Sall booba ba léegi mi ngi xëccoo mënu ko moom. moo waral ñu jàpp Khalifa Sall néewal ko doole toroxal ko ni ba mu ne tot yóbbu ko kaso ah di ko toroxal saa su ne ci caisse d'avance ci 1 milliard 800 boo xam ne ñoom ñoo ñu tey nekk ci nguurug Sénégal mais kuñ ci audité woon tëj la kasoon parce que ay milliards yu dul jeex la ñu yore te milliards yooyu ñoom mënuñu leeral fan lañ ko jëlee. assemblée nationale nag ku ci nekk xam na ne assemblée nationale lu Macky Sall la ku ci xam na ko assemblée nationale la boo xam ne 125 députés la fa Macky Sall am. ñi si des di opposition bi benn indépendant lañ fa am muy Ousmane Sonko. loolu moom mooy tax ma xaw a transiter tuuti ci assemblée nationale li fa xewoon fan yi ginnaaw bi nu jógee ci waxu xalifa euh, sàll gis ngeen fan yi Ousmane Sonko ci bi nga xamante ni Amadou Ba dem na fa Ousmane Sonko di wax ak moom di ko laaj lan moo waral impôt yi ñuy dagg député bi fayee ko 1 million 300 il faut ngeen xam ne député simple. L'Assemblée nationale du Sénégal 1 million 300 lay Les députés, yi nga vice président président de commission yi ay 2 millions lañuy président groupe parlementaire dana dem ba 5 millions il faut ngeen xam ne xaliss non lañ koy 000 yi. ku ci yor nañ 1000 litres carburant ñi 2000 litres carburant il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko wax ko ne ko lan waral ab député ñu may fay député simple 1 million 300 mille 1500 francs l'impôt un enseignant il faut 200 200 300 ou 300 000, 70 000 francs. 70 000 francs l'impôt loolu bi mais Amadou ministre de l'économie et des finances du Sénégal nga xam que ordre protocolaire la la quatrième personnalité du gouvernement du Sénégal le président de la République le premier ministre le ministre des affaires étrangères ministre de l'économie et des finances qui ki ëpp dans ci yow yaay taxaw assemblée nationale Ousmane Sonko la laaj la rek benn laaj ne la waaye yow ministre lan moo waral man député bi fayeeku un million trois cent mille nga di ma dagg mille cinq cent francs jàngalekat bi fayee ko trois cent mille francs nga koy dagg cinquante mille mais Amadou Ba xam ngeen lu mu si teg waaw loolu de su amee dañ ko war a déclarer ku ko déclaré wul nag sa affaire la dégg bu baax li ma wax quatrième personnalité la quatrième personnalité du Sénégal du gouvernement du Sénégal nee na ci assemblée nationale du Sénégal li ñuy dagg enseignants yi ak 70 mille ak yeneen di député yi ñetti téeméer ku mu neex nga déclaré ko ku mu neexul sa affaire la mais lolo lolo ban waxu kooku kon moko gëna nek ko nekk ku fan lañuy ñuy yare nit ñi ci Sénégal légui fan yeen yeen a ngi wax ne Sénégal nit ñi dañu wara a yaru dañu war a respecter président dañu war a respecter ministre yi dañu war a respecter conseil constitutionnel dañu war a respecter chef religieux yi waaw dañu war a respectente dañoo war a respectente yow ministre bi soo bëggee ñu respecter la da ngay respecter sénégalais yi mais du yoon ngay ab ministre suba ñu mën laa dàq doo dara ab inspecteur impôts et domaines nga ñu fal la ministre été taxaw assemblée nationale au Sénégal devant tout le peuple sénégalais nous avons déclaré déclaré ko déclaré affaire mais Amadou Ba Amadou Ba ministre de l'économie et des finances que enseignants yi fonctionnaires yi ñuy dit que francs que leen règle régler problème Amadou Ba parce que c'est pas normal yow député yi war nous audité. ministre Sénégal dañoo yaakaar ne assemblée nationale du Sénégal bu ministre bi demee wala premier ministre bi moom moom moo yilif député yi déedéet député yi ñooy kilifaam moom ministre boobu. pourquoi mu taxaw jàkkaarloog député yi naan ku ko ci def baax na ku ko ci defut sa affaire la pourquoi ñu koy may loolu parce que Sénégal ni mu tëddee moo jaaduwul. Sénégal dañoo jël ay ministre ak ay nit ñoo xamante ne bi tekkiwuñu dara barki Demba Ndiaye def leen ay ministre ñu ñëw taxaw ci kanam ñii di leen fontoo pourquoi Amadou Ba ñemee taxaw ci assemblée nationale du Sénégal dane waw mbir mi non lay démé koko def baana koko deful c'est ton problème li mo tax ñu def la ministre yow heure bi tay ci suba ga bimu waxé lolu Macky Sall waron na dakk Amadou Ba mais duko dakk parce que mom mo dox mom moy mom moy dox ay yitém ñun nak duñ ko nangu duñ nangu Amadou Ba ñëw di ñu yapp nous sommes des élus man conseil municipal la député dañ leen fal de Sénégal mo leen fal ñu am mandat 5 ans boo taxawee ci assemblée nationale yow ministre bi ndaw nga war ngaa respecter député yi war nga leen a jox cër avec ça ñuy bëgg a tympaniser nit ñi naan war ngeen a yaru fan la nit ñi di yaroo fan la nit ñi di yaroo bu fekkee yow ñi jiite yaa yaa gën a yaree di ko Amadou Ba jikko ku yaree di ko la def ci assemblée nationale du Sénégal te il faut ñu dénoncer ko ba ñëpp xam ko soo bëggee ñu jox la cër da jox nit ñi cër. loolu benn la ñaareel ba Amadou Ba xamul dara il faut ngeen xam ko Amadou Ba est-ce que xam ngeen ne moo ngi indil Sénégal 61 pour cent de dette extérieure Sénégal li muy exporté li muy produire di ko jaayi bitim réew saa buñ ko jaayee ba pare 61 pour cent yi téeméer boo jël juróom benn fukk ak benn bor lañ koy fayee bitim réew kooku xam na dara leb rek la fi nekk waaye yow leb dong ngay def xaalis di lemi yóbbu garantie garantie bi mi joxe bitim rew garantie senegal la sunuy ressource suñu pétrole ak suñu zircon bi ak gaz bi am ci senegal mom la Amadou badi garantie bitim rew ngir ñu mën lebal xaalis buñ tabaxé jam ñaajo ak tabax yi ñuy def ni Amadou Ba xamul dara Amadou Ba mi ngi def déficit public 20 ci rew mi déficit public xam ngeen lan moy déficit public dañu yaakaar ne nit ñi xamuñu économie mais mom xamul dara man mako wax man asan si la mala wax yow Amadou Ba xamulo dara ben xamulo dara parce que yarwo yaa ngi taxaw assemblée nationale di saga nit ñi xamulo dara ci sa liggéey parce que réew moo xamante ne nga budget bi 3000 milliards la nga ci def déficit public 20 xamoo dara xam ngeen lan mooy déficit public day taxaw ñu ne waa budget Sénégal estimé nañ ko à 3000 milliards xayma nañ Sénégal ñoom ñu ne Sénégal war naa dajale ci at mi ñetti junniy milliards waa yow ministre bi yow yaa ko wax ne Sénégal li man na dajal ci atmi dem assemblée nationale wax ko fa ñu voter la année bi jeex yow nga dajale 2500 am nga écart 500 milliards yo xamné ne nga né réew mi dana ko dajale dajale woko kon yow say prévision fausé na kon xamoo dara xamul dara bu dé bitim réew la déficit budgétaire ñi ngi leen ki autorisé jusqu'à 4 bu dé bitim réew Europe ku ci nekk xamné né budget dañ koy xayma waaye am na seuil am na foo xam ne dañ leen wax ne bu fa yemee 4 pour cent la war a doon ñun ñun Afrique fii Sénégal 20 pour cent la ñuy am déficit budgétaire loolu moo waral ngeen di dégg ñu naa leen emprunt obligataire xam ngeen lan mooy emprunt obligataire ma wax leen ko emprunt obligataire mooy bu ñu demee ba Sénégal liquide amatu fi liquidité bu ñu fayee salaire yi fay nit ñi ministre bi day génn daan ne def naa emprunt obligataire mooy dañuy woo milliardaires yi ci Sénégal ñu leb leen seeni milliards tegal leen ci benn intérêt intérêt boobu ñu siy teg na ngeen xam ne bu dee bitim réew la un virgule cinq pour cent la bu dee Afrique fii ci Sénégal 6 virgule 3 pour cent li ma leen di wax lu mel ni midi la Amadou Ba munu cee dindi ñaar bu dee bitim réew la bu ñu lebee milliardaires yi réew moomee dañ leen see tegal 1 pour cent un virgule 3 wala 1 virgule 5 yow amadou ba ngay ñew fi di def emprunt obligataire milliardaire yi sénégal yi manam ñom cheikh amar ñom sëriñ mboub ñom ñooñu nga leb leen seen milliard ba part tegal leen ci 6 kon ça veut dire que ne mi ngi yok ay milliards milliardaires yi ci sénégal politique économique amadou ba du politique du dara politique du toroxal sénégal ak gën ñoo ray gën ñoo yok ay bor xamul dara ni la démé bu leen yaakaar ne xam-xam la yor boo xam non non c' est un inspecteur des impôts mook sonko ñoo yam dayo moo waral li leen sonko di wax munuñ ci dara munuñ ci dara parce que amul xam-xam bi lebi bitim réew lay def estimer ay estimer budget boo xamante ne bi daf koy faussé ñaareel ba mu def emprunt obligataire di dolli milliardaires yi ay milliards loolu moo fa am xanaa bu ñu leboon sax ma PMI mi leb leen tuuti xaalis ñoo ñu ñu tegal leen ci intérêt boobu intérêt boobu dimbale sax doomi Sénégal yi nga xam ne amuñu dara mais milliardaires yi Sénégal na ngeen xam ne moom la gouvernement du Sénégal di yokk ay milliards loolu nag. politique économique la bo xamante ne bi ki def xamul dara ben ñaarel ba wane na yaree di ko mat ci assemblée nationale Sénégal té foog ñu dénoncé ko kenn duko ko parce que man duma nek doomu Sénégal yor ay droit ci réew mi yow nga taxaw assemblée nationale Sénégal di ministre des finances yoré sunu alal ñun Sénégal ñu dénk la ko di la fay jox la lepp jox la kër jox la logement de fonction jox la salaire bu baax jox la indemnité yu neex neex fo dem bitim rew senegal jël ko asar yori garde corps yor lepp ba noppi taxaw assemblée nationale du senegal la souveraineté du peuple dané ne li ñu def mom lañ def bu la nexé nga def ko bu la naqaree kum ci nexut sa affaire la. mais Amadou Ba yarwo yaruwoo kon bu len nu wax nit ñi nan nañ yaru bu ngeen dé bëggé yar wa senegal ñen ñi jité rew mi yaru len ba pare loolu bëggoon naa ko wax bëggoon naa ko wax parce que euh, ñu tok di seetaan un ministre taxaw di wax lu ko neex ci assemblée nationale parce que mooy kan tu es un ministre simplement tu n'es rien d'autre mën nañ la dàq suba tu n'es pas élu ñun dañ ñoo fal par rapport ak yow man damaa dem xeexe ñu fal ma ñu fal ma sama dëkk nag yow doo dara dañ la nommé bu subaa mën nañ la dàq nga delluwaat ci sa impôt et domaine li gën a metti ci Sénégal nag mooy da toog gis benn ministre yorul woon dara nga toog au bout de deux ans nga dégg ñu ne milliardaire la pourquoi ngay dégg ñu naan ñu naan Amadou Ba milliardaire la Amadou Ba fan la nekkee milliardaire ministres yi Sénégal yi kañ lañ war a mën a nekk ay milliardaire ci réewu Sénégal kañ kañ lañ am xaalis bu toll noonu bay yor ay kër yi un milliard ay kër yi huit cent millions ay kër yi cinq cent millions de francs ba pare bañ nit ñi wax ko ba pare di accuser nit sàcc alors que yow yaa ngi dëkk ci ay milliards foo jëlee milliards yi un inspecteur des impôts et domaines warta ami milliards c'est bu amee milliards daf ko sàcc te momit dañ ko wara auditer buñ ko jappé yobbu ko kasso loolu moy yoon loolu moy deug benen bi moy benen ministre bi nga xamante ne bi mooy Maimouna Ndoye Seck Maimouna Ndoye sek jigen la ndaysan euh, euh heureusement bi nga xamé ni que ni souleyman Ndéné Ndiaye waxna ak mom heureusement parce que souleyman Ndéné Ndiaye sax bien que ci ñom la bok mais au moins euh redresser na touti baar bi sinon man dina rus ci sénégal bu fekkee ministre yi lu leen neex lañuy wax te duñ wax dëgg ministre yu ñakkano est ce que sénégal di wax lu dul dëgg te kenn du la ci wax dara ba pare bëgg yar nit ñi naka la mëna nekké may mëna ndoy sék xam ngeen lu wax néna Macky Sall mo inventé aéroport bi moko ko ministre bi yor transport aérien néna makisal Macky Sall mo inventé aéroport bi moko ko Souleymane Ndéné Ndiaye heureusement génn na ne ko déet aéroport bi kat ah, ah. xalaatu Ablaye Wade la woon bi nga xamante mi ngi woon ci gouvernement Abdou Diouf après bi ñu génnee gouvernement Abdou Diouf affaire booba nekk stand by ba 2000 bi Ablaye Wade ñëwee def étude defaat lépp defaat lépp tabax ko ba mu yegg fi mu yegg Macky Sall eggale Macky dafa eggale man Macky Sall du ma ko quitté mérite man bañu ma kenn soxoyu ma kenn Macky Sall ko quitté mérite bi mu am mooy eggale na aéroport bi waaw mais eggale aéroport bi ça ne veut pas dire que Macky Sall moo defar aéroport bi Maïmouna Ndoye Seck poste ministre bi ñu la fal bu fekkente ne bi da ngaa bëgg a raay Macky Sall raay ko ci leneen mais raay ko ci dëgg dal wax dëgg li nga wax du dëgg may Maïmouna Ndoye Seck amut Ablaye Wade moo inventé aéroport bi moo def étudier moo ko defar ba 70 pour cent Macky la ñëw eggale 30 pour cent yi war koo inauguré le 7 wax leen loolu loolu mooy li jub loolu mooy liy dëgg te bu ngeen ko waxee du wàññi ci seen mën-mën dara du wàññi ci seen jëf dara wax sa mbaaxuwaay du wàññi ci sa mbaaxu bopp yow dara Macky Sall taxaw mu gërëm ay Ablaye Wade ne ko jërëjëf ci aéroport bii bañ koy ba nga koy xalaat 2007 kenn xalaatu ko woon loolu du dara man du ma waa kër Ablaye Wade ah hmm, man je indépendant kenn moom ma mais nag li am laay wax Macky sàll mën na taxaw mu ne Ablaye Wade jërëjëf yow mi xalaat kii bi 2007 bi nga koy xalaat Afrique sow jant kenn xalaatul woon affaire aéroport kon nag maa ngi leen di ñaan nañ gore gis naa nag Dakar ñu yor fa seen ab oto di wër naan ay les réalisations du président les réal bu leen ci boole aéroport bi moom du seen réalisation ndax fa dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg rek jotee aéroport bi du réalisation wu Macky Sall aéroport bi à 70 réalisation Ablaye Wade la Macky Sall mottali ci 30 bon cent ba avec la continuité de l'État mom moy ñoo pour inaugurer ko c'est ça la vérité. il faut pas que nak ay ministre yi ah ndax fal nañ len ministre rek ndeysaan ñu bëgg ngoy ci ministre gi tax ñuy wax bay wax lu du deug nit ki da ngay goré doon ministre warul la tere nga nek gor doon ministre warul tere nga wax deug dëgg nag yàlla moo ko moom man bu ma nekkoon ministre aussi lu dëgg laay wax boo neexee président bi bu ko neexul moo xam c'est ça loolu la mais nan la ñuy toogee ministre taxaw assemblée nationale di saaga ñu nu mu ko neexee may mën a ndooy sekk taxaw fee di inventé naan way ab Macky moom alors que moom conseiller u Macky Sall la bi Macky Sall nekkee premier ministre Macky Sall bi mu nekkee premier ministre Abdoulaye Wade du ñu ngi defar ay bi wax ne Macky moom moo ko créé li ñuy wax a ngi nii ci ministre yi man dañ may rusloo sun ministres dañ leen di xeeb man dama leen a xeeb laa wax man sun ministres dama leen a xeeb ah. duñu ay nitu dara ay al toppe lañ yoo xamante ne bi amuñu gëm-gëm amuñu conviction boo waxee nañu ay avec l'impulsion du président sous la vision du président yow an sa vision yow yow tu n'as pas de vision yow amuloo ga xalaat yow yow dañ la fal ministre fal la ndaw nga nga nekk responsable ñu jox la département ministériel boo xam ne voté nañ la budget wu 80 milliards ou 100 milliards de francs nga taxaw di di di inventer des choses yoo xamante ne bii c'est pas normal dañ ko war a dénoncer tarif tarifu aéroport yi nag dégg naa ko yónnee nañ ma tarif yi aéroport bi yónnee nañ ma tarif yi de tarif yi ma gis yu seer la ay aéroport Dakar treize mille francs ay aéroport Thiès onze mille francs ay aéroport Mbour douze mille francs moom laa fi gis a ah, ci tarif yi ma yónnee ci aéroport bi tarif aéroport bi nag benn maa ngi koy wax moom may mën a ndooy sekk billet avion yi nañ ci def nañ ko ci def ab moodu-moodu boo wax wala kuy voyage koo xamante ni bi dafa war a jógee bitim réew ak kuy dem kooku warut yoonam warut a nekk ci fay billet. kooku ay bus ñoo war a am fu ñu ko jëlee yóbbu ko ci aéroport ba wala bus jëlee ko aéroport ba yóbbu ko destination te loolu ñu inclure ko ci billet bi. personne lambda yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw ci aéroport bi di fa xëy di fa liggéey see ak ñi nga xam ne dañuy gunge ñu jaay leen ay billets te jaay leen ko ci billets yomb mais billet 12000 13000 14000 jëm 18000 laa fi gis de na ngeen ko xam léegi maa leen ko wax léegi comme information léegi lañ ma ko jox ci suba. ay mille francs laa wax de aéroport ak Thiès mille francs benn nit bu nekk loolu na ngeen ko xam de na ngeen ko waajal maa ngi koy ñaan nag na ko def ci billet avion yi bu nit di dagg billet tarifu busam nekkaale ci biir nga xam ne du nekk naan day paas bus réew moo dem ci àddina bi. aéroport ba ba fa wacce bus ba mo lay jël gratuitement yobbu la ba ci ba ci fa garage ba nek bu fekke comme Thiès la nak nañ la yobbu Thiès bu fekke Dakar la nañ la yobbu Dakar nañ ko def ci biir biir avion bi loolu vraiment bëggon na ko préciser di ziar ñëpp ah, ñi dugg si ñëpp wallahi ma ngi leen di magal di leen ziar yeen ñëpp oh, wa Ibrahima fay bëgg na la Alioune Ndiaye ma ngi lay bëggee bu baax ya tamit Assane an wa ñi ngi ci di leen ziar di leen ñaan waxtaan yi ngeen di ko partager pour nit ñi di gis liy xew ci réew mi di xam liy xew ñun ñëw ñu fii pour toroxal kenn ñëw ñu fii pour saaga kenn dañu ñëw rek pour leeral askanu Sénégal liy xew pour ngeen di xam dëgg dëgg réew mi gaa ñi ni ñu koy doxalee nu mu demee. ñëwuñu aussi pour manquer respect kenn mais nag dinañ leen wax dëgg dëgg gi mooy boo bëggee yar nañ ñi na nga yaru yow ba pare yow mi jiite. boo yaruwul munoo yar kenn loolu tamit il mu xam

loolu na leer masuma koo cautionné te duma ko cautionné ba ilaa yow mi diini li ma bëgg a wax foofu nag mooy lenn Assane Diouf dendale na ay saaga ay kilifa d'accord mais Assane Diouf du moom moo fi mës a saaga tey rek de Souleymane Jules Diop fàttaliku leen ko ministre conseiller la du mi ngi ci gouvernement Macky Sall saaga na fi xalif général de Tidiane wax ko wax ju ñaaw pendant des années ñëwul senegal ba bi Macky Sall gagné lay ñëw ak ay garde corps ba mu dem jéggalu ji sëñ Abdou Aziz Junior ñu jéggal ko mu dooral a léegi nekk léegi ministre la day gundaan daat yori otoom te moo fi saaga Junior ñëpp di koy dégg Moustapha Cissé Lo saaga na fi moom it fii lu mu ko neexee saaga na ku ko neex fii saaga na sëriñ bu ne saaga na sax Macky Sall après baal nañ ko ah. Nous sommes ministrables. président parlement la vice président l'Assemblée nationale du NOS. du conseiller ba le Diouf procureur de la république il faut que xam ndaw la procureur de la république ak procureur général président de la république moo leen di nommé ñoom buñ leen nommé ba pare dañoo war a nekkal askan wi lañ fi war a nekkal mais waruñu fee nekkal ab président wala ab ministre bien vrai que waa ji bu fekkee li mu def tooñ na na ko yoon atte mais na yoon na atte ñu def Assane Diouf warul dem kaso Penda Ba di nekk France ah. Assane Diouf warul dem kaso penda ba mi saga nday wolof yep farba ngom genn fi tfm ñu jox ko télé ñu jox ko télévision bi mu nan waaw sama mbokk la c'est que mom de da def ni rek dafa joom dafa li dafa la wala asan djouf mom xana amul nday amul bay. xana asan djouf mom amul ay mbokk yo xamne mën nañu taxaw ñom ci télé bi ne dafa joom dafa li dafa la mais penda ba mom yobu nañ ko france quoi yow nal jégel nguur gi bokol ci wa nguur gi dafa li tojaange dañ lay sax takal ay grade ñeneen ñu tok mën ta takal grade buñ suspecté ne mën nañ leen a rey ñu rawale leen yóbbu leen france assane diouf moom waaw moom la ñuy jiñ toxu yamba moom la ñuy jiñ dof moom la ñuy jiñ ku bon moom la ñuy jiñ nangam ñi ci des moom ñi saaga woon ñëpp te bokk ci nguur gi moom ñi ngi noos tey injustice la c'est pas normal man li ma d'accord mooy bu ñuy jàpp nañ jàpp ñëpp man anduma ci saaga de assane diouf bu saaga ñu war ko denc ci kaso bi nañ ko denc ci kaso bi mais nañ dencaale Penda ba ci kaso bi nañu dencaale Souleymane Jules Diop ci kaso bi warul nekk ci biti nañ denc Moustapha Cissé Lo ci kaso bi kon bu boobaa dinaa ne bravo mais nag mënuloo nekk procureur de la république d' accord kilifa nga war nañ la respecté mais su la neexee wala mu arrangé nguur gi nga dem jëli ñooñu enquête jàpp tëj ci kaso bi bu arrangé wul nguur gi yow doo sax yëkkati sa loxo yéen acteurs yi justice bi yéen magistrat yi laay wax ay doomi Sénégal ngeen muy ngay procureur ngay président tribunal nag laa wax ngay greffier ak koo mënti doon doomi Sénégal ngeen dangeen a jàng ba yor seen ay lijaa sax du nguur du président de la république du kenn ku leen yóbbu foofa seen xam-xam ak seen xarañte moo tax ngeen doon li ngeen doon ak ndimbalu suñu boroom waru leen a seetaan ab état di len manipuler ngeen di japp ñu len neex di bayyi ñu len neex lolu c'est pas normal du yoon dañ ko wax nak dañ koy dénoncer man dina ko dénoncer amna procureur yu bax nak ñu bax ñu ma xam amna ay magistrat yo, xamanteni bi ay président de cours et tribunaux yu bax yu jup yu ma xam xamna syndicat aussi des magistrats du Sénégal ñu ngi kaas ay droits Nous avons dit que le président pas être au conseil de la magistrature suprême Nous sommes dit que le président nommé les présidents des hauts cours et tribunaux du Sénégal ndax ku ci ne xam Macky Sall président tribunal du Sénégal Je suis nommé au haut conseil de la magistrature suprême suis nommé procureur suis nommé procureur général Macky Sall est nommé Lors, l'union union magistrat des magistrats du Sénégal Nous koy depuis des années kon ndaanee naa nag ah, kilifa diine keneen moo ci yam kilifa diine sa gars yi dañ koo jël kilifa diine ëpp na personne lambda doomu aadama simple donc Assane Diouf war a ko saaga waxuma la kilifa diine parce que ku bëgg ñu respecter sa waajur wala nga respecter nit ñi da nga war a respecter waajuru jàmbur yi loolu c'est très clair loolu mooy li nga xamante ne bii moo jaadu waaye nag bu ñuy àttee bu mu am deux poids deux mesures kaawu Assane Diouf nag deux poids deux mesures la Assane Diouf def na njaaxum nañ ko atté tejj ko ci kasso bi mais nañ saga kat yi ci saga kat yaangi fofu ci nguur gi di taxawalo di def lu len neex di voyager ñor seen passeport diplomatique ñor seen xaalis de gundaan dar ci réew mi kii moom c' un pauvre quoi c'est un pauvre ñun baadoole yi ñun ñoy wax rek ñu ni banque ci kasso bi comme ça ñun ñi amunu nday amunu baye amunu kenn ku ñu yir lolu mo jaaduwul dégg naa aussi ay chef religieux yu wax euh Assane Diouf ablay wad moko fay wala Assane Diouf dafa dof Assane Diouf doful junne japp ko nit njaay la dofut junne japp xamna bu bax limuy def deug na serigne boo yoy nak di wax nan waaw euh, euh, dafa saga ablay wad moko euh, ki mok ma di Kenya c'est faux c'est pas vrai dañ baye li ñuy wax ku ci bëgg neexal Macky Sall rek wala bëgg Macky Sall jox la passeport diplomatique wala jox la xaalis rek ngay taxaw di wax lu du nit ki nag koo mënti doon boo waxee lu dëgg ñu la la waxoo dëgg parce que dëgg moom yàllaa ko moom problème mu chef religieux yi nag buñ bëggee mu deñ ñoom ci seen bopp ñoo koy dindil seen bopp ñoo dugg ci politique bi de ñoo ci dugg Mbàkke nag aw sant la si aw sant la euh, euh, laay aw sant la ñas aw sant la comme si la ni mu nekk sant ni ko faal nekke ni ko jóob nekke ak njaay doonal kilifa gu mat kilifa jaar ci yoon wi nit ñi topp la gëm la faale la fonk la doonoo ko dugg ci politique bi di xëccoo boo waxee du dëgg ñu dajji ko teg fële loolu il faut que mu leer c'est pas des choses xam ne dañ koy wax pour pour di di di di saraxu nit ñi non non saraxuñu kenn sëriñ saa ngi fi ah kilifa yi ñi ngi fi respect bi leen di jox ba léegi ñu ngi leen koy jox sëñ Muntaxa ngi fi ah kenn du ko gis ci lu dul yoon sëñ cheikh wo ngi fi han ah. seigne sidé ngi fi ah sëñ moustapha wo ngi fi ah sëñ abdourahman ngi fi han ah. seigne ahmadou rafayi ngi fi han ah. seigne abo ngi fi han mais ñu ngi fi nit leen yaakar di leen top parce que ñanga ca tol ya di bay di dundé yor ay talibé di leen tarbiya di liggéey di def ci ñoom loolu la leen seeni baay ak seeni mam jangal soo ko fa bàyyee nag yow nga ñëw dakaar jënd fa sa kër gu baax yor say oto di gundaan ndaat naan Assane Diouf daa dof wala dañ koy fay c'est pas vrai kenn fayu ko loolu tamit na leer parce que il faut pas que ñu topp na continuer di xas nit ñi waaw nangam sax non non non non man li may wax dama ko wax lu leer la Assane juuf dendal na ay saaga ay kilifa procureur woo na ko parce que ñi mu ñi mu dend ay saaga ay nit lañ ñoo xam ne ay nit ñu mag ñoom ñoo wéeru ci seen ginnaaw kon kooku dañ ko war a woo biñ ko woowee maintenir na li mu waxoon ne maa ko wax ñu denc ko ci kaso bi d'accord mais nañ denc ñu ci des buñ bàyyi ñu ci des moo tax Sénégal amul amul justice ay injustice yi neen moo fi am muy Khalifa Sall muy Assane Diouf muy ñeneen injustice yi neen moo am ci réew mi injustice boobu nag yéen waa Sénégal yéen a ko war a xeex partagé leen waxtaan yi ngir doomi Sénégal yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci àll bi di ko gis réseau sociaux yi njariñ bi mu am léegi mooy nit ñi lu ñuy wax nit ñi dinañ ci ko dinañ ci mën a jot pour mën a leeral kon partage bi ngeen di partagé benn bouton bi ngay gis benn bouton bi ngay bës ne j'aime wala benn bouton bi ngay bës partagé ko pour ñeneen gis ko yaa ngi liggéeyal sa réew yow mi may seetaan bul ma seetaan rek yem ci partagé ko ngir yeneen yi doomu Sénégal gis li ñuy wax xam ne li ñuy wax dëgg la du ay kàcc du ay sos ñun ñëwuñu fi pour kàcc ñëwuñu fi pour sos dañ fay ñëw pour wax dëgg te ragaluñu ci kenn kun koy waxal nag ginnaaw bu nga xamante ne bi vraiment bëggoon nañu euh, dolli parce que il faut nit ñi dellu si waat seen xel ñu xam ne euh, kilifa pour ñu fonk ko danga koy wane kilifa pour ñu respecter la da ngay nekk ci yoon bi pour ñu respecter la mais la moo xew Sénégal léegi kilifa yu ci bari yu ci bari laa wax da ngeen leen di xool kan la ñuy recevoir woykat bi ah Youssou bu ñëwee ñu xàllal ko ubbil ko woy lay def ku ci nekk xam na woy am pola joueur bi bu alaaj Alaaji Diouf ñëwee ñu xajal ko bu mbër mi ñëwee ñu xajal ko wala Waly Seck ñëw wala nangam sàngam ñooñu la ñuy xajal mais yow taalibe bi nga xamante ne bi yaay joxe addiya yow yaay dem daayira bu gàmm jotee wala màggal yaay reyu nag jël sa ñaari junni yi di ko joxe di raam di pour nga gis sëriñ bu audience sax problème la quoi sa loolu duñ ko wax man taalibe bu moo bëggee gis sab sëriñ wala yow mii bëgg a gis sab sëriñ da ngay sonn bu pourtant woykat bi moom parce que woy na parce que siiw na wala parce que am na télé rek ngan parce que moom nit ñi ñu ngi koy gis rek bu ñëwee dañ koy ubbil yoon kon yow toujours pauvre bi daal mooy gën a pauvre fii ci Sénégal pauvre bi bu ñuy tëj kaso moom la ñuy tëj kaso pauvre bi bu fekkente ne dem nga si kilifa diine bi yow yow mën nga fa am ñaari fan di rang doo gis sëriñ bi léegi bu woykat bi ñëwee moom dañ koy xàllal moom eh, diw de Youssou Ndour la eh ubbi leen Youssou Ndour lu muy def doo am fo fo rek la ndax diine dafa wax loolu voilà mbir mi nii la demee mbokk yi dafa neexut neexut ci xol mais nii la demee neexut a wax ndax boo ko waxee ñu ne la waa da ngaa yabaate neexut a wax parce que boo ko waxee ñu ne la waa dangay saaga da ngay fontoo nit ñi da tooñ kenn tooñut ay dëgg yu wér mais péng la lu leer la li may wax nii lu mel ni midi la kon yéen askanu senegal yéen jeunesse su senegal jóg leen ñu jële fi ñii yéen askanu Sénégal jóg leen ñu jële fi nguuruk Macky sàll ak Macky Sall buñ ko jox ñaari mandat na fi yem Macky sàll doy na yéen Modi yi jóg leen yéen Modi yi jóg leen jóg leen parce que wax jot na Modi yi yéen Modi yi am ngeen doole yéen Modi yi am ngeen xaalis jóg leen ngeen génne moyen yi Modi yi ci diaspora bi jóg leen jóg leen jàppale leen ñu ñu jële fi Macky Sall man taxaw naa man pour jële ko fi jàppale leen ñu jële fi Macky Sall ñun duñ ay hein? triant man triant pour restaurer la vérité au Sénégal indi séparation des pouvoirs au Sénégal mbokk yi nous ñaari rek lañ soxla 3 millions lañ 2000 lañ soxla États-Unis wa États-Unis wa Canada Brésil Argentine yeen continent américain Europe France Espagne Italie hein? mais jóg leen ngir yàlla Allemagne Belgique ah jóg leen ngeen jàpp ci liggéey bi waa Chine ah waa Asie waa waa Australie yéen moo di jóg leen ñu jàppoo booloo suñu ay doole buñ ko defee Macky Sall dootul def lu ko neex ci réew mi man maa leen ko wax wallaahi jóg leen yéen moo ñu ànd ak waa Sénégal yi nekk biir Sénégal jeunes yi nga xam ne gëm nañ Sénégal jeunes yi nga xam ne gëm nañu avenir u Sénégal ñu boole suñuy doole génne Macky Sall ci présidence de la république 2019 nañ ko fa jële parce que Sénégal légui waratul tok ron réew mo xané ab dictateur wala kuy buur di bumi mo koy yor non non waratul nek lolu pourquoi ñuy sétane mu yor pouvoir yépp Macky Sall ben nit yor tous les pouvoirs tous les pouvoirs moko yoré yore dañ ko dañ ko fi wara a bëggoon naa def ben bres wax ci port xam ngeen ne port fan yi genn fa conteneur jafé na trop yeen wa port yow ministre des transports maritimes mais port lu fa xew port lan mo waral legi bateau yi bu ñëwee dañuy tok fofu ba mar dem Mauritanie dem Côte d'Ivoire décharger door del si port kan mo lan mo xew port yeen ñi duggal seen conteneur na ngeen ko xam de gaay yi yóbbu seen conteneur yi actuellement ni weere ngi ni seen conteneur mi ngi mi ngi mi ngi port mënuñu ci ko jot parce que directeur bu bees bi nee daal day contrôler qu'est-ce que c'est que ça yi dañuy ñëw léegi ba port de Dakar toog fa pour war a décharger xam ne mënuñoo décharger ñu dëpp dellu li dëpp dem de voir wala ñu dem bi décharger ba pare dellu si waat Dakar door a décharger waaye lii lu mu doon nii yéen lii lan la qu'est-ce que c'est que ça waa port yi gaa yi génne seen i wax nañ ma ko sonn nañu port gaa yi fa ne sonn nañu yéen nguurug Sénégal yow ministre des transports deglu liñ lay wax yow directeur port bu bes bi remplacer Cheikh Kanté lijeentil li nga xamné mo nek ci port bi conteneur gaay yi ñi ngi fofu di cloisonné ya nga ray économique modou yi modou yi duggal ay conteneur seen économie mi ngi yaqku parce que ñi ngi ñew Sénégal waran fi def 15 jours gëna seen conteneur jaay ko demaat ñi ngi fi def ñaari wër légui qu'est-ce que c'est que ça bu ngeen mënta liggéey réew mi ngeen bayiko bu ngeen mënta yor réew mi balen ko te bayyi ni ngeen di toroxale seen askan Yen askanu senegal nak yéenay setan ñu leen di toroxal de yéenay setan ñu leen di toroxal mais rew yeb dañoo bañ rew mu fi jall wala mu avancer fi dafa xex ku ci xexul do am dara senegal na ngeen xamne buñ xexul duñ am ñaar na ngeen ko xam de force de sécurité et de défense nak moy police armée gendarmerie sapeur ak douane yéen yéen yor sunu yéen armée Sénégal waruñu leen a dugal ci benn njombe yéen gendarme yi waruñu leen a defloo benn njombe ndax ay doomi Sénégal ngeen yor yi rakk yor nday yor bàyyi ci réew mi nag waruñu leen door loo doomi Sénégal yi ngeen leen di yóbbu ci prison yi di leen torturer wala ngeen di leen dóor kenn santu leen ko amul benn policier bu ñu sant ne la jàppal nit nga di ko dóor ba muy bëgg a dee kenn waxu la ko da ngeen fa war a nekk pour assurer la protection des personnes et des biens mais pas pour ngeen di dóor nit ñi rey nañ ñi nguur gu leen ko wax ministre leen l'intérieur bu leen ko sant bañ leen ndax seeni doomu ndey ak seeni frère ngeen nekkal warul leen leen a torturer warul leen leen a dóor mais gars yi lu ñuy nekk ci kaso yi di ko dénoncer tamit metti na loolu nag lu jar a wax la yéen yéen a fi nekk ngir assurer suñu sécurité pour Sénégal bu nu mënee tëdd ci réew mi mais armée bi moo tax ñu mën a normal ba terrorisme amu fi armée bi lañ ko war a gërëmee war nañoo gërëm gendarmerie ndaxte ku ci mën a déplacé wu entre région ak région c'est la gendarmerie war nañoo gërëm police bi ndax ku ci mën a nelaw sa kër police moom moo tax ngay nelaw war nañoo gërëm sapeur parce que ku fi lakkale ñoo lay fayal sa lakk war na ñoo gërëm douane parce que fraude bi ku ko nar a dugal ci réew mi di jaayal yomb ñu interdire ko mais ngàcce ngaalaamaa yéen ci loolu mais loolu nag bu mu tax ñu leen di dugal ci yëfu corruption wala ñu leen di def loolu bon ngeen di ko nangu leen ko nangu maa ngi wax nguruk senegal nak ne liñuy fay armée bi du dara ay soldats su bari jot nañ ma di ma informé ay 150000 francs lañ leen di fay du dara di jënd ay char de combat ay avion ay bateau ay nangam nan bateau de guerre ñuy def 4 avril ñuy ngand ngandalu nan waaw ci senegal mi ngi armée wu senegal mi ngi armée wu alors que yow doomi senegal yi wara a yor arme yoyu amuñu lu nu lek ba du ngeen gestuwaat soldats si ngeen fay leen fay gu bax du ngeen gestu gendarmerie ak police ak douane ngeen fay leen fay gu baax ngir corruption bi wàññeeku ci réew mi bu corruption bi ëppee ci réew mi ci ñooñu rek dañ leen a fay fay gu baax man gis naa leen a jël naa ci ay renseignement yu baree bari man xawma woon ne gars yi taxaw si mbedd bi su gàmmu amee wala màggal ak yooyu ay ñetti téeméer lañ leen di fay par jour wala 2000 francs maximum ñooñu ngeen di gis ñuy taxaw si yoon bi chaque 200 mètres yor fetal gi kalachnikov bi wala yoy mais ñooñu ñetti téeméer wala 2000 francs lañ leen di fay par jour ñu yendu fa 6 heures ci suba ba 6 heures ci ngone lolu c'est pas normal ñi assurer suñu sécurité nañ leen di fay fay gu bax muy soldat muy gendarme muy police muy sapeur bi ray bopam di fay ay lakk douanier yi aussi nañ leen fay fay gu bax lolu moy mën tax corruption mën wañé ko ci réew mi lolu tamit vraiment bëggon nako préciser ndax nit ñi sonn nañu retraité yi xool leen Sénégal retraité yi sonn nañu ñoom interpellé nañ ma amuñu dara ay pension 2 mois 18 000 12 000 20 000 30 000 mais 30 000 par ñaari weer naka lañ koy fayé ab ab retraité ci réewu Sénégal Si bala ngay une bourse familiale diko politiquer voter bourse familiale Les retraités, nga xamné 40 ans 35 ans nañ leen fay fay gu Ils ont 25 millions nga def 75 000 francs par mois am lu nu Senegal inégalité yi dafa bari mbokk yi inégalité yi nek ci réew mi dafa bari te kuko wax ñu yobbu la kuko wax ñu bëgg la lek na la yow da ngay dara soxor kenn soxorul dëgg lañ leen di wax magi sal liggéeyu senegal liggéeyu fi la nekk moom njabootam senegal ku bañ ñu wax ko lolu nak ko bayyi constitution senegal mo téré a président de la république ngay jël sa njabot di ko ci ni ñu géré réew Ablaye Wade defon nako domam ak Karim Wade ah Sindiély ak Karim Wade rek la Abdoulaye Wade jëloon de ñu leen di di reeg wax tey Macky sàll nag léegi moom ak Aliou Sall ak Adi Sall ak Amadou Sall ak Marème Faye ak Mansour Faye ak Gorgui Faye ak Tafa Faye ak Abdoulaye Faye ñoom ñëpp ñu yor suñu xaalis te kenn du wax nag ku wax ñu ne ah dafa réew eh dafa saaga président eh dafa soxor eh dafa bon non non soxoruñu. saga wuñu président li ni wax moy président bi limi def mom la teggut fenn jaadu wul te dañ koy dénoncer nak ñun ay acteur politique lañ ci réew mi duñ ay lolo duñ ay jam duñ ay nit ño xamné aussi danoo danoo xif xifunu soxla lu ñu ñadre moom bum ñu gis buñ ko gis mais dañ ko wax deug ah, parce que Macky Sall momu Sénégal de yeen diaspora bi jog leen ñu jëlé ko fi jog leen ñu jox ko ben mandat mu dem yonam na fi Macky Sall joggé bu fi jógewul danañu torox yenen juromet ma len ko wax Sénégal gi mbokk yi inégalité yi fi ñak motax réew mi mënta dem Macky Sall ñu ko jox 10 milliards caisse noire jox ko ay 60 milliards fonds politiques jox ko budget présidence Macky Sall yor police yor l'armée yor gendarmerie yilif leen yor député assemblée nationale di buur di bu mu ci réew mi il faut ñu arrêté loolu mbokk yi il faut ngeen xam ne Sénégal problème bi sax des fois da naan du Macky Sall problème bi ñun la ñun ñun la ñun ñi ko bàyyi muy def lu ko neex ñun la ñun ñoo ko fal mais nañ ko fi jëlee ñu teg Sénégal ci yoon ku ci nekk xam na ne séparation des pouvoirs amut ci réew mi Macky Sall yilif justice bi moo yilif euh, assemblée nationale waaw nuñ koy saafara niñ koy saafaraa mooy ñu jox ko benn mandat delloosi rétablir la vérité dans le pays rétablir la vérité mooy ñu indi séparation totale des pouvoirs justice yi moom seen bopp juges yi ak magistrats yi di daje di fal seeni kuréel ngir mën a yor réew mi assemblée nationale moom boppam nguur gi ñu mën di leen contrôler corps de contrôle yi ci Sénégal te ñu nekk présidence de la république ñu jëlee leen fa ARMP OFNAC yi cour des comptes IGE nañ leen jële ci loxol président de la république ñi war a saytu alali Sénégal bu dee ñu ngi ci loxol président dañuy saytu la ko naqari mënta nekk mbokk yi lii mooy dëgg corps de contrôle yi nañ leen génne président de la république bu ñu leen fa génnewul duñ mës a seet kenn ku bokk ci nguur gi li koy saafara nag mooy pétition bi ñuy woote pétition bi ñuy woote mooy ñaari junniy nit lañ soxla ci Facebook bi ñaari junniy doomi Sénégal yu gëm seen bopp gëm seen réew bëgg seen réew ñëw ñu jële fi Macky Sall nañ ko fi jëlé ci informer nit ñi nañ ko fi jëlé ci partager ay vidéo di waxtaan nañ ko fi jëlé ci échanger ci gox-goxaat yi yéen waa diaspora bi jog leen ñu jëlé fi Macky Sall mais ñoo bayyi ay ministre yo xamné ak gouvernement bo xamné dañoo arrogant alali Sénégal lu leen neex lañ koy kasar kasare yori milliard léegi dem nañ seet ministre yi Macky Sall yi ñoom ñëpp a yoru xaalis léegi ñoom ñëpp ay milliardaire lañ ñoom ñëpp a yori kër léegi ay kër yu ngande kër yoo xam ne boo ko estimé cinq cent millions nga wax huit cent millions kër yu un milliard fu ñu ko jëlee fan lañ jëlee loolu ci juróomi at dañoo yabaate nguur gouvernement bi dañoo yabaate ñi ci nekk dañoo gën a yaree di ko Assane Diouf laa ñoo ko gën a yaree di ko fuuf asan Diouf ab personne simple la personne simple la yow ministre bi do personne simple de da ngay kilifa nit ñi fonk la di la joxe garde corps jox la sa way fo dem sa ñu lay rekkal junjung li ta yow ngay taxaw assemblée nationale di saga nit ñi comme ça pourquoi ñuy saga nit ñi yow yaa ñu gën nday amadou ba bay taxaw assemblée nationale nan ku def ku ku deful sa affaire la ah? yabaate xamoo dara Amadou Ba na ngeen xam xamul ministre des finances la bu plus nul ci ministre des finances du Sénégal massa n'y am amul xam-xam bi bu ko amoon déficit budgétaire de 20% pour cent ba pare def emprunt obligataire di ci teg six di milliardaires ay milliards. c'est pas normal Ousmane Sonko ben là laaj la ko Ousmane Sonko laaj rek mu patiné qu'est-ce que c'est que ça Sénégal waruñu nangu lii. yéen waa Sénégal jóg leen ñu ngi leen di woo diaspora bi maa ngi leen di woo jóg leen ngeen jàppale ñu jële fi Macky sàll mu am benn mandat mu dem Macky sàll benn mandat la war a am de doy na sëkk doy na sëkk gis ngeen Emmanuel Macron président France 39 ans la maa ko mag maa ko mage benn at Emmanuel Macron président France maa ko mage benn at ëpp ma xel ëpp ma xam-xam ëpp ma fit Lum def ba yor France ñun ñi mën nañu yor rew mi ah. nañ bayyi buñ waxe ñaan wa magi Sall bu fi joge ko fi ne c'est pas vrai ñepp mëna yor rew mi Sénégal ñepp ko mëna a yor Demba sek yow mi Ndongo mbaay Birahim Tafa Touré yeen ñi ñepp mën ngeen yor Sénégal man mën na yor Sénégal la buñ ko mënul yor nañ ma jox ma yoré ko magi Sall mom rek mën ta yor rew mi bu mënoon yor rew mi du def njaaxum yi yépp ñuy def ak ñuy sétane ci Sénégal Allah ni amunu dara Allah baa ngi nii 70 pour cent réewu Sénégal ndol amuñu courant amuñu ndox ay yoon demu fa amul hôpital amul amul amul l'école ni tok nan way président bi def na way jam ñaajo machin jam ñaajo buddi say immeuble di tabax nonu di dem rek alors que bo démé à 200 mètres nit ñi amuñu eau potable c'est ça le développement le développement du Sénégal c'est buddi ay immeuble à jam ñaajo alors qu'à 200 mètres, les gens n'ont même pas d'eau à boire. Ils amuñu eau potable. au Sénégal réfléchir leen ci seen réew au Sénégal yéen jeunesse bi yéen ñii may seetaan di samay doomu nday samay frère 2000 personnes lañ soxla 2000 ñu jëlé fi Macky Sall maa leen ko wax je vous le promets ñaari junniy nit na ñëw ànd ak ñun ñu jëlé fi Macky Sall léegi mu am benn mandat mu dem yonam. ñu arrêté lu ñuy def jël milliards yi caisse noire dañ ko fi wara jëlé waratul am sénégal fonds politique dañ ko fi wara jëlé jëli xaaliss di jox yi sëriñ dañ ko fi wara jëlé passeport diplomatique yi ñi kasar kasar di jox ñi nga xamné ne wuñ ko dañ ko wara arrêté dañ ko wara arrêté sénégal mënul continuer ci rythme bi mbokk yi ñu diko sétane man woyeluma kenn sambay mbayaana luma kenn neexaluma kenn sama yon neku ci woyelu ma Ablaye Wade du Idrissa du Macky Sall du ken du Tanor waxuñu seeni wax Yen indépendant la yeen wa Sénégal sun rew mi politiciens yi ñoko yak nañ leen fi jëlé yor sun rew mi tegaat ko ci aw yon teg ko ci ay yoon yu man nañ ko ah, buñ fi nek kan di ñu ray dag naan ñu ay bu fi Macky Macky Sall fu joggé ñu bari man nañoo yor Sénégal won ne dana yor Sénégal te ni yor ko def fi dooxi doono yu ko neex nu ko neex la yor rew mi dem ma ngi len di ñaan nañ ko jox benn mandat benn mandat ma ngi len ko ñaan 2019 Macky Sall na fi joge bu fi jógewul rew Senegal dina torox ma len ko wax ñun nak soxla luñ ko deureum yaakaaruñu ko dégg na rek des fois da nga ñu naan day wax rek de waye bu ko Macky Sall woon Macky Sall di bu ma wooyee ci ngeen di xamne nak amna doomi Senegal yo xamne ba legi li ñuy bañ ñing koy bañ bëggnu ko wuñu ko wuñu ko leen ngeen ñew dugg ci MPES jëf ak njariñ ay indépendant lañu ñu dajalé wa sénégal ñepp naka ci yam indépendant yépp obédience boo mënti doon nañ dajalo am doole jun fi jëlé ñi ngir defar suñu réew mi buñ leen fi bayé dinañ continuer di toroxal askan wi li ñuy def moy géopolitique bi ñuy def dem ci kër sëriñ ci naan waaw dañ leen di neexal li ci def ñu jël ay chef ay personne ressource ay kat ak ay footballeur ay nangam di leen neexal ndax nit ñi seeni fans ñanga fa li ci def ñu jël ko yobbu ko ci bourse familiale li ci def ñu kasar kasaré ko mais kañ la àll bi di am ndox kañ la àll bi di am courant kañ la àll bi di am yi lekkool ak yi poste de santé ak yoon yu fa dem kañ kañ kañ mbokku Sénégal jóg leen lii may wax nii du sama bànneexu bakkan lii may wax nii du lu ma neex may toog nii di wax rek mbokk Sénégal jóg leen injustice bi bari na injustice bi bari na jóg leen ñu changé suñu réew mi jóg leen ñu xeex jóg leen ñu jële détenu politique yi ñu jële leen ci kaso yi yéen ñi nga xam ne yéen ay mbokki xalifa Sall ngeen ay mbokki asan Diouf jóg leen ngeen ñëw jàppale nu ñu jële fi ñii bu ñuy tëj nañ tëj ñëpp man li ma d'accord mooy loolu bu ñuy tëj nañ tëj Assane Diouf nañ tëj Cissé Lo nañ tëj Jules Diop nañ tëj Penda Ba nañ tëj xam Mbaye nañ tëj saagakat yi te pourquoi ñuy tëj naam pauvre el pauvre el pauvre ñu tëj ko comme saa ci kaso bi procureur war nga bañ lolu ma ngi lay ñaan na nga bañ lolu yak sa mbokk procureur yi de len xol lu ngeen di def yalla mi ngi fi yomal khiyam mi ngi fi mi ngi ñew ñun ñep dinañ dé lepp lu fi way def nit nga toroxol ko parce que ndax yow sa poste bi nga ne bëgg nga ko téye ba tax président du Sénégal wala am ministre sant la lo xam def nga ko jaadul bo dé di nga ko layok sa borom de bo toroxalé doomi jàmbur ci kaso bi ba mu dee fa boo di ko layok sa borom de man maa ngi leen koy wax nag képp ku fi jiite Sénégal yor fi ndomba tànk di abuser ci sa ndomba tànk di toroxal doomu aadama mi yàlla dina la toroxal bala ngaa dee maa leen ko wax. bépp kilifa diine aussi bu fi nekk di seetaan injustice ndax xaalis bi ñu lay jox ndax ndomba tànk yi ñu lay jox ngay seetaan ñuy toroxal say taalibe wala ngay jaay say taalibe yàlla dina la toroxal képp ku ko def nag ak koo mënti doon waaw. mangi ngi ñep nak vraiment di ziar ñep vraiment di jégalu encore une fois ci waxtaan bi guddal gi jël nañ tuuti sen temps mais il fallait que ñu wax ko ndax ndaxte Amadou Ba limu def assemblée nationale c'est indigne d'un ministre de la république c'est indigne Maïmouna ndoy sék lu mu wax c'est irresponsable c'est irresponsable pour un ministre de la république Assane Diouf liñ ko def c'est une injustice totale bien que cautionné wu ma saga yi mais injustice la ndax buñ ko tejé war nañ tej ni ci res Khalifa Sall est un détenu politique li la fi Macky Sall nek mbokk yi c'est ça ah légui nag yeen wa diaspora bi yeen ñi nga xamné yeen nga ñuy seetaan nek bitim réew yow mi may seetaan yow mi partageel vidéo bi moy premier djégo bi nga wara a a def bu dee bëgg nga lu baax bu dee bëggal nga ñu lu baax bu dee yéene nga li ñuy xex ñu am ci ndam yow mi may wo yow mi may féliciter yow mi may ñaanal li nga ma meuna gëna meuna jappalé moy nga partager vidéo yi moy nga jog ñew and ak ñun ci xex bi ci sa ñak ak ci sa cadeau ak ci sa jëf ngir ñu jëlé fi ñi yeen wa diaspora bi jog leen am ngeen jéego bu reuy am ngeen liggéey bu reuy yeen nga bitim rew xam ngeen li xew bitim rew vous êtes très intelligent yeen gëna yewu ci adina bi parce que gis ngeen yeen li xew jog leen ñew ñu jëlé fi ñi jog leen jappalé nu ñu jëlé fi ñi wallahi ci sunu dëgg la nu nek wallahi dun ay nafiq wallaahi duñu ay fenkat wallaahi duñu xaalis moo ñuy tax di wax fii bëggal suñu réew jàmm bëgg lu baax bëgg réew mi doon patriote doon doomi Sénégal te gën ko loolu moo ne fi teg mais du ay mooningu kenn bëgguñu ko soxlawuñ ko mais nag ministre bu fi toog di jaay arrogance di jaay reewande taxaw assemblée nationale li saaga nit ñi comme Amadou Ba ñu dénoncé la wax ko ba Sénégal gépp xam ko parce que yaruwul moom Amadou Ba day mëna ndoy sek la même chose di inventer di wax lu dul deug ndax lan pour neexal Macky Sall ma ngi leen di tuubal nak vraiment di deglu ci sen temps bi ñu jël di leen jox rendez-vous inshallah samedi bi di ñew bu soobé yalla parce que waxtaan bi bari na mais inshallah dañuy koy def comme niñ ko doon defé rek samedi ji jot sa buñu ko jot gi maye ñu dugg wax leral Sénégal li fi xew leral ko wa diaspora bi ndax dañ leen di nax TFM lañ leen jox ak RTS yoru leen wal fajiri yéen waa bitim réew du ngeen seetaan wal fajiri kon amul contre pouvoir li leen neex rek lañ bëgg ngeen di ko gis RTS ak TFM télévision yi nguur gi la ñu lu leen neex la ñuy wone bu leen leen seetaan bu leen leen gëm lavage de cerveau lañ leen di def yéen population Sénégal bi nekk ci jasporaa bi bu leen nangooti di seetaan RTS ak TFM dañ leen di nax liñ leen di wax dara du ci dëgg man maa ngi nii senegal de li ñuy génn ci télé bi dara amu ci ay kàcc la man maa ngi fii ci réew setan buñ bëggoon dëgg dañ leen di won wal fajiri wal leen seen tv wal leen tv wal leen rts ñeenti télé la mais ngeen xool bu ngeen xoolee information yi mais nag ay professionnel nekk ci seen ginnaaw écran modifier seen information wane lu leen neex ngeen di ko gëm bu leen topp rts bu leen topp tfm dañoo manipuler information di leen won li neex nguur gi bañ leen ko man maa ngi fii sénégal li ñuy wone dara lu ci dëgg réew maa ngi gën a ndóol réew maa ngi gën a torox bu ñëwee ñu wan leen ci écran télévision buddi ay immeuble wan leen aéroport bi di ko campagner ngeen yaakaar ne ñu ngi liggéey ñu de àll bi nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi ndóol gaa nga fa nit ñaa ngi torox amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan yéen diaspora bi xalaat leen ne seen mbokk yaa ngi ci àll bi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan oto yi oto amu fa amul yoon amul poste de santé amul dara xiif baa nga fa buñ leen won ay télévision nak génne leen ay immeuble ngeen di ngand bu aéroport bi buñ ko inauguré ngeen yaakaar ne def nañ dara de sénégal nit ñaa dé loolu na ngeen ko xam man ma leen ko wax te sosuma ci yokuma ci fenuma ci man duma fen fenkat duma fen fenaluma kenn duma fenal kenn de ma ngi leen di ñaan ngeen jóg jappalé nu ñu dindi injustice bi ci sénégal may leenu doole nguur gi dañuy ngand ngandul di wax ni rek population bi bu jógee rek ñu daw ñoo gën a tapet fii dañuy wax rek may leen ñu doole ñu jëla leen fi njaareem nag gi may jeexalee fi laa dëkk njaareem sonn nañu waaw jurbel sonn nañu mbokk Sénégal jurbel gi ma dëkk nit ñaa ngi torox amul lumière jurbel salte na